la yo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 ak yeneen xale yi nekkul ci école yi xale yooyu jàngul ci école yi mën nañu topp émission bi ngir xam ni jàng ak bind di tëddee ci làkku réew mi ci école yi dinañu bàyyi xel it bu baax xale yiy jàng ci baraay maanaam ñi làmb ak seeni baaraam li ñuy jàng ngir xam ko ginnaaw pàcc bu njëkk bi nu def émission bi am na yeneen juróom-ñaari pàcc yu ñu jagleel woy abajada worof araf yi ngeen jàngoon ak seeni coow ak yeneen yu ngeen jàngagul dinañu it jàng nettali yu yees ak baat yu jafe. xale yi nekk ci kër yi te dinu topp bari na ay yëngutu yu nuy amal ci biir émission bi kon nag na ngeen ànd ak nun jàng bu baax dinañu leen may jot gu ngeen tontoo ci laaj yi ak def yëngute njàng yi foofu ci seen kër. yaay Assane ndax dinañu soxla ay jumtukaay ngir ànd ak yow jàng. waaw waaw Marie ci téere kër bi lañuy jànge seen xarit yi nga xam ni bokkunu ak yéen nu jànge dañuy jëfandikoo téere kër bi ñu def ci baraay ngir ñuy làmb ak seeni baaraam li ñuy jàng nijaay ndax sunu xar yi ñuy déglu dinañ soxla ko leen jàppale ci kër gi ngir ñu gën a mën a jàng ci émission bi waaw waaw sama jarbaat maa ngi sax ñaan ñi jàppale seen xarit yi ci kër gi niki yaay yi baay rakk yi mag nijaay tànt bàjjan umpaañ ak ñoom seen ñuy dend ak ñoom bu émission bii wéy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 nu bamtuwaat woyu aba jada wi yoon wi nag nanuy teg sunu baaraam ci suufu araf wu nu tudd ci woy wi sunu xarit yi ñuy déglu nañuy woyandoo ak nun tey tegandoo ak nun seen baaraam ci suufu araf yi nijaay yan jumtukaay lañuy soxla ku ci nekk ci yéen dinga soxla sa téere kër léegi nag teg leen seen baaraam ci suufu arafu jëkk yu janoo ak biddéew bi samay jarbaat ak sunuy xarit yi ñuy déglu ndax teg ngeen seen baaraam ci suufu araf yu jëkk yu janoo ak biddéew bi waaw sunu baaraam a ngi tege ci suufu araf wi samay jarbaat ak sunuy xarit yi ñuy déglu araf wu jëkk wi ngeen teg seen baaraam nu mu tudd ah waaw leen kumba waaw leen góor noonu la araf wi jëkk mooy a léegi nag damay woññ su ma yeggee ñett ngeen woy abajada wolof bi tey teg seen baaraam ci suufu araf yi ñuy tuddandoo ndax jekk ngeen waaw jekk nañu benn ñaar ñett ab ca dë e e, e jë këlë mën a ñë opp xërësë të u wë ah waaw leen góor waaw leen kumba. Mm-hmm. woy wi neex na te it gis naa ni ngeen doon teg seen baaraam ci suufu araf yi. amu leen moroom nii la léegi nag ci leçon bu nekk dinañu woyandoo abajada wolof bi tey tegandoo sunu baaraam ci suufu araf yi. dina neex de di jaay. samay jarbaat ak suñu xarit yi ñu déglu léegi nag. dañuy tàggatu ci laal ay araf tudd leen bu gaaw ngir tàmbali ci ñaari araf rekk lañuy liggéey ci lu dul yàgg dara nag dinañu jëfandikoo araf yu bari nijaay Assane naka la ñuy jàngee laal ay araf tudd leen bu gaaw xët juróom-ñett ci téere kër ngeen di jëfandikoo mooy xët yu ngeen ubbi woon bi nuy woy abajada wolof bi ubbi naa sama téere ci xët juróom-ñett nijaay man tamit ubbi naa yaakaar naa ne seen xarit yi itam ubbi nañu seen téere ci xët juróom-ñett léegi nag dañuy tàggatu ci laal ñaari araf yu jëkk yu abajade te tudd leen samay jarbaat ak sunuy xarit yi ñuy déglu teg leen seen baaraam ci suufu araf yu jëkk araf yu woowu mooy a ndax kenn ku nekk ci yéen teg na baaraamam ci suufu arafu a waaw teg nañu suñu baaraam ci suufu arafu a léegi nag ñépp a war a teg seen baaraam ci suufu araf wi topp ci a araf wi topp ci a mooy arafu b yéen ñépp wan araf ngeen joxoñ b léegi nag xam ngeen arafu a ak arafu b dañuy tàggatu ci laal araf yi te di leen tudd maa ngi njëkke damay laal araf wu nekk te tudd ko a b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 jàng ko ci kaw tigi sama jarbaar noonu la aywa yéen ñépp laal leen a ah, te jàng ko ci kaw a ah. ah. waaw leen kumba waaw leen góor yéen ñépp laal ngeen a jàng ngeen ko yëkkati waa leen seen baaraam aywa yéen ñépp laal leen ba te jàng ko ci kaw ba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 yaa ngi fàttaliku ca école ba naka ngeen doon waññee dogi baat yi te di jëfandikoo sàllu kanaara xam naa ni seen xarit yi ñoo ngi koy fàttaliku. waaw maa ngi fàttaliku bu baax sàllu kanaara dafay neex soo dee wàññi ay dogi baat ak sàllu kanaara. Badu wax nu naka la ñuy defe sàllu kanaara. nijaay su ma dee def sàllu kanaara. damay dajale samay tuñ naj leen ak samay baaraam ba sama gémmiñ du mën a ubbeeku aywa nun ñépp nanu àndandoo jéem sàllu kanaara yéen samay jarbaat ak sunuy xarit yi topp émission bi dajale leen seeni tuñ naj leen ak seeni baaraam ba seen gémmiñ du mën a ubbeeku ah, sama jarbaat <laughs> def ngeen sàllu kanaara ni mu ware xam naa it ne seen xarit yi ñuy déglu def nañu ko bu baax li ci topp mooy dañuy yëg dogi baat yi ci sàllu kanaara badu ndax yaa ngi fàttaliku naka lañu doon def bay yëg dogi baat yi ak sàllu kanaara waaw waaw nijaay damay jëkk a tuddaat baat bi ci kaw su ma noppee ma jëfandikoo sàllu kanaara liyaar ci baat bi su may liyaar baat bi damay yëgaale dogi baat yi waaw góor sama jarbaat yéen ak seen xarit yi ñu déglu dangeen war a baamtu baat bi laata ngeen di def sàllu kanaara aywa yéen ñépp baamtu leen robbam jarbaat léegi nag da di fàttali sunuy xarit yi naka ngeen di jëfandikoo sàllu kanaara ngir yëg dogi baat yi nekk ci robbam nan ngeen di def ba yëg dogi baa yi nekk ci robbam waaw damay def sàllu kanaara boole ko ak liyaar robbam te bañ a ubbi sama gémmiñ aa wóor na ma ne sunu xet yi ñuy déglu mën nañoo jëfandikoo sàllu kanaara ngir yëg ak wàññi dogi baat yi léegi yéen ñépp jëfandikoo leen sàllu kanaara te bañ a ubbi seen gémmiñ liyaar robbam ñaata dogi baat nga yëg ci robbam hmm? Hmm? ñaar la ni kon gis ngeen yëg li mu dogu baat ak sàllu kanaara dafa ñuy dimbali ci woññi ñaata dogi baat lañu am ci baat léegi nu bàyyi sunu xarit yi ñu déglu ñu jëfandikoo sàllu kanaara ngir yëg dogi baat yi yéen sunuy xarit yi ñu déglu baamtu leen ñoree yéen sunuy xarit yi ñu déglu jëfandikoo leen sàllu kanaara ngir yëg dogi baat yi nekk ci ñoree sunuy xarit wax leen nu ñaata dogi baat ngeen yég waaw ñoree am na ñaari dogi baat waaw leen góor waaw leen kumba samay jarbaat léegi nag da ngeen di fàttali sunuy xarit yi sàllu kanaara ngir ñu yëg dogu baat walla dogi baat yi nekk ci naan defaat leen ko jëfandikoo sàllu kanaara naan yéen sunuy xarit yi ci kër gi yéen a war a baamtu baat bi te jëfandikoo sàllu kanaara mari ñaata dogi baat nga yëg hmm? benn dogu baat kese laa yëg mi jaay wax nga dëgg waaw kumba naan benn dogu baat kese la am léegi nag suñuy xarit yi déglu rajo bi nekk ca Fatick ca Njaareem ca Louga ca Kaolack ca Kaffrine ca maatam ak leen wër ñooy def salu kanaara ngir yëg dogu baat wala dogi baat yi nekk ci mi suñuy xarit wax leen ñaata dogi baat ngeen yëg ci mi samay jarbaat ñaata dogu baat ñoo nekk ci mi hmm. Hmm. benn dogu baat la tigi mi benn dogu baat kese la waaw kumba mari waaw góor badu léegi nag sunuy xarit yi ñoom Paul ñoom ayda ñoom Nogoy ñoom Faatu ñoom Musa ak ñoom Malik ñooy def sàllu kanaara ngir yëg dogg baat yi nekk ci musóor suñuy xare yi ñaata dogg baat ngeen yëg ci musóor samay jarbaat ñaata doggi baat a nekk ci musóor musóor mm, mm, mm, ñaari doggi baat jërë ngeen jëf yéen ñëpp jëfandikoo ngeen bu baax sàllu kanaara ngir yëg te wàññi li mu dogg baat yi nekk ci baat yi ngeen dégg <laughs> xale yi léegi nag dama leen di won ab baat bu ngeen xam ni amaana bu bees la ci yéen baat bi mooy aay gaaf ma jox leen am misaalu kàddu bu ngeen xam ni jëfandikoo nañu ci baatu aay gaaf yaay ji jàpp ni xale bi dafa aay gaaf mari ndax mën nga ma wax lu aay gaaf di tekki sa xarit yi ñuy déglu itam war na nu jéem mooy ku soxor waaw kumba mari na sa seex wéyal nu xool badu ndax man nga jéema wax lu ay gaaf di tekki sa xarit yi ñu déglu tamit war nañu jéem ay gaaf mooy koo xam ni dafa am lu baaxul waaw góor badu xale yi jërë ngeen jëf ci jéemantu bi dégg naa ci seeni tontu ngeen wax ne ku ay gaaf mooy ku soxor ku am lu baaxul ndax noonu la mel walla nit ñoo foog ne noonu la mel mari ay ca nit ñi ñoo foog ne dafa am lu bon lu nekk ci moom waaw ku mbaawaay ku ay gaaf nit la ku ñu foog ne dafa ànd ak lu bon léegi mari jéemal a defar kàddu gu am baatu ay gaaf seen xarit yi ñuy déglu itam niki ñoom Émilie ca Fatick ñoom ca Mbàkke ak ñoom Malick ca Louga ñoom itam war nañu jéem. foog nanu ne mbote mi dafa aay gaaf ndax dafa juddu rekk ñetti nag feebar. waaw Kumba Mari Badu ndax mën nga defar kàddu yow itam sa xar yi ñuy déglu tamit war nañu jéem. xale bi ñu naan dafa aay gaaf. kenn nanguwul a fow ak moom loolu lu ñaaw la waaw kay xale yi yéen suñu xale yi déglu te nekk Ndar ñi nekk Njaareem ñi nekk fatik ñi nekk Louga ñi nekk Mbàkke Bawol ñi nekk Ourossogui ak ñi nekk maatam yéen ñépp yegsi nanu ci njeextal liggéey bi ñu waroon ci baat bég nañu lool ci yéen tàccu leen seen bopp amu leen xale yi yéen sunu xare yi ñuy déglu ñoom musa ñoom Yande ñoom ay Aysatu ñoom Malick Victor léegi dama leen di jàngal ab nettali boppu jukki bi mooy doomu wëllu wi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 waaw nijaay doomu wëllu léeboon lippoon amoon na fi daana am amoon na fi jigéen ju bon ju dëkkoon ak ñeenti doomam ñu nga dëkkoon ca biir àll ba baayu xale yi mu ngi génn àdduna bi caat mi juddoo yaa ji jàpp ne xale bi dafa aay gaaf mu daldi ko bañ bu masaan rëbbi ba ñëw dafay woo xale yi ñu nàmp ba mu des caat mi mu di ko def ay yoon yoon waaye mësul xam ne yàlla daan na feeñu caat mi ci melokaanu wëllu wu bari meew am bés ba dal jigéen ju bon ji mu jóge ci àll ba di woy woy woo mu daan woowe xale yi ngir nàmpal leen kenn wuyuwu ko mu jaaxle lool yàggul dara mu dégg baat bu mu miin di woy naan ko xale yi golo sàcc na leen ñoom ñépp ba mu déggee kàddu googu jigéen ji dafa yuuxu jooy ba sonn ñeenti xale yi ñoom nekk ak seen nijaay golo di fo di ree golo moom dafa saf xorom foofa la léeb doxe tàbbi géej bakkan bu ko jëkk a foon tàbbi àjjana xale yi yéen suñuy xarit yi ñu déglu ñu nekk Louga ñu nekk Njaareem ñu nekk kawla ñu nekk Fatick ñu nekk kafrin ñu nekk Ndar ñu nekk Kanel ak gox yooyu yépp leen wër njort naa ni teelu ngeen bu baax njàngum nettali bi léegi nag damay jublu ci laaj yi nettali bi ci lan lay wax sa xel yi ñuy déglu itam war nañu jéem a tontu. nijaay nettali bi mu ngi wax ci jigéen ju amoon ay doom bañ ci kenn ne dafa aay gaaf dafa daan nàmpal ñi mu bëggoon di bàyyi ki mu wax ne dafa aay gaaf am bés ñu sàcc xale yi mu bëggoon. waaw Kumba Mari Badu wax nu jëmm yi gën a fës ci nettali bi seen xarit yi ñu déglu itam war nañu a tontu ci laaj waaw Kumba Mari wax nu jëmm yi gën a fës ci nettali bi seen xarit yi ñuy déglu itam ñoom Xadijatu ñoom Isaa ñoom Faatu ak ñoom Pool war nañu jéem ñoom itam ci tontu. nijaay jëm yi gën a fës ci ñettali bi yaayu xale yi la golo xale yi ak wëndu wi waaw góor badu xale yi yéen daal jàmbaar ngeen ay ca mari léegi nag tontul ci laaj bii jigéen ju bon ji ñaata doom la amoon seen xarit yi ñuy déglu itam nekk ci gox yi ak gox goxaan nekk ci njaareem nekk ci fatik nekk ci kawlax Kaffrine Louga ak Ndar ba Matam ñoom war na jéem a tontu ci laaj bi jigéen ji ñeenti doom la amoon waaw Kumba xale yi yéen daal jàmbaar ngeen ay ca badu léegi nag tontul ci laaj bi ci topp lu tax ñu ne caat mi dafa ay gaaf seen xale yi ñuy déglu war nañu ñoom itam jéem a tontu ci laaj bi dañu ne dafa ay gaaf ndax bés bi mu juddoo ci la baayam gaañu waaw góor badu xale yi yéen daal jàmbaar xale yi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 laataa ñuy tàggatoo ak yéen bëggoon nañu ngeen tànn ab diir ginnaaw émission bi ngir jàng li nekk ci xët fukk ci téere kër bi ndax jàpp ngeen li ma wax xale yi waaw nijaay yéen waajur yi bu émission bi jàllee mën ngeen itam jàngal seen doom ay nett li ngir dëgëral mën-mënam ci déglu te dolli ko ci ay baat yu yees nett li yu mel ni léeb ak ñoom seen li ñu ci jublu mooy nandal xale bi ak yenn ci ay mbir yu bokk ci aadaam ak cosaanam te dëppoo ak ni xelam di màgge su ngeen di nettali na ngeen di wax ndànk-ndànk dee leen di xaar tuuti gannaaw pàcc bu nekk ci nettali bi laataa ngeen di jàll ca ba ca des loolu dafay tax xale bi xam naka la nettali bi di wéyee su ngeen di nettali aayul ngeen di faral di dellu gannaaw ci nettali bi ngir jukkil xale bi ay mbir yu ko ci rëccoon xale yi bëgg nañu lool ñu leen di dégtal ak dégtalaat ay nettali te duñu ci tàyyi lëkkale leen nettali bi ak dundu xale bi ci misaal mën ngeen ko laaj lu mel ni su doon yaa waroona naka nga doon doxale bu leen yàkkamti te na ngeen wone ak yombal saa yu ngeen di jàngal xale bi ab nettali bu nettali bi jeexee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 elew yaag ca kër ya toog jaaxal seeni waajur waaye seen jaaxle jeex na programme lecture pour